sant yàlla di julli ci sayiduna muhammad di feddali suñ koomteef ci seexul yi di balu xàq ñépp di leen baal di ñaan yàlla boo leenu jéggal di ñaanal seex muhammadul muntaxaa yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak bu wér moom mbooleem njabootu borom Tuubaa gi di ko ñaanal mbooleem ku lislaam tax a jóg di nuyu mbooloo mi bu baax di leen ziyaara di ci jiital sunu sëriñ sëriñ Ismaayila Mbàkke moom sëriñ Muhammadu Mbàkkem sëriñ Abdul Xaadir mu seyxanaa Ahmadul Xaddiim ñoo ngi lay jox cër bu baax yaram di la ziyaar waaye di la ndokkeel ci bis bu màgg bi ndax ki ñu koy defal kin ciy fàttaliku moo la boole ci borom Touba te ka mu meññoon muy ab taawam mu defar ko ba gëm ni amul ku ko gën ci kaw suuf si ba ku ko masa wax diw baax na mu ne la ndax mel na ni Mouhamadou sama moom moo la ci boole. sëñ Abdou Khadir am na ku doon wax léegi ci moom yaakaar naa sëñ Abo la yal yàlla bàyyi ko fi mbàkke yaram moom it sëñ Abdou Khadir la ci lislaam bi boo xam ni fu ñu mën a gis ku mel ni moom bariwul ndax doomi borom tuubaa la na sëriñ bi roye woon sayiduna muhammad ci sunna mu mel noonu ci yonent bi ba noppi toppe noonu borom Touba copier am na jagle yu bari nag yoo xam ne ay jagley boppam la moom sëñ Abdul Xaadir di doomi borom tubaa rek ab jagle la bu fekkoon xamle doomu aadama xamle nit kuy taxaw nii ñu yor jëmmi nit bu fekkoon xamle ko day am plafond kii doomi sëñ tubaa la mooy plafond wu xamle doomu aadama jëmmi nit bu fekkoon xamle ko day am plafond fu muy plafonné buñ ne kii doomi sëriñ Tuubaa la ku dul doomi sëriñ tubaa dootoo ñëw ci niveau boobu doomi sëriñ tubaa benn niveau la ku dul doomi sëñ tubaa demoo fa ku dul doomi sëriñ tubaa ju góor doomi sëriñ tubaa ju jigéen a la gën moo tax ma wax ni bu fekkoon xamle bi day am plafond kii doomi sëriñ tubaa la doy na ci ndax ku dul doomi borom tubaa demoo fi doomi borom tubaa nekk ku dul doomam ju góor doomam ju jigéen a la gën ak foo baaxee nag ci àdduna boo dul doomi borom tubaa ju góor rek doomi borom tubaa ju la gën moo ñaanoon yàlla nag ni ko nanga ma leen barkeelal te beralu ko góor ñi dafa woon yàlla rek wala ya baarik fil banina wal banaat bi suuratin awaluha wal aadiyaat wax ko feneen ni ko ak bi xaali xaami ayaali raaci rijaali waaye xisni nisaa yi yàlla may ko mu ni yàlla may na ma man Ahmadou Bamba maak samay doom dañuy am xam-xam dañ koy jëfe dañuy texe man na alayya wa ala awlaadi bil ilmi wal amali wal isaadi moo tax ku dul doomi borom tubaa ju góor doomi borom tubaa ju jigéen la gën doomi borom tubaa ju mën a doon boo ko génne woon kër borom tubaa kër góor yàlla boo ko dugal góor yàlla bàyyi dugg ci néegam wax ni sama doom ji moom a gën tax diw doomi borom Touba la rek maqaamam boppam la mu beru mu keneen dootul am am na nag jagle yoo xam ni ay xaas la yoo xam ni yàllaa koy jagleel nit sëñ Abdul Xaadir bari la na ci lim ci bari le mooy fu nu tagge borom Touba man ko faa tagge ci meen ak gaño bu fekkee waxi wolof la ñuy wax fu ñu tagge borom Touba man ko faa tagge ndax soxna Aminatu mi ko meññi sëriñ Bousso bi miy wëy juram ak soxna maam Marème Bousso mi meññi sëriñ bi ñoo bokk lépp kon moom mooy mbokkum borom Touba bu ko Cheikh Amadou Bamba meññul woon di jaayama sëñ bu mag bi meññul woon sëñ Abdou Khadir sëñ Touba di jaayi sëñ Abdou Khadir kawayoon Alaaji Fàllu Mbàkke ni wàllu ndeyam di wàllu yaari maamam ndeyam di baayam baayam ay ndijaayam mbub moomu sëñ du Khadir rek la jotaat ci àdduna bi mbub moom mu solal sëñ Fallou Mbacké sëñ Abdou Khadir rek la jotaat ci àdduna bi moo tax sëñ Fallou mas naa wax maa leen raw fop gën leen a jubóog yàlla fop ku dul sëñ Abdou Khadir maa la gën a jege sëñ Touba waaw ku dul sëñ Abdou Khadir maa la gën a jege borom Touba waaw parce que bu fekkee dañuy ñibbi nag mook borom tubaak suñu sëñ Abdou ñooy bokk fun ñibbi kon loolu beneen sens la ci sëñ Abdou Khadir mu feeñaale beneen privilège boo xam ne privilège la bu ko yàlla jox mooy daarul alimul xabir gii ci kër sëñ Abdourahman loolu la sëñ Abdou Khadir Mbacké feeñee ci soxna Aminatu Kandi Bousso bi mu feeñee ñu ñëw njaarim wax ko borom Touba borom darul Mouhty la woolu bi Cerno ñëwee mu jox ko fasu naaru góor wu weex tàll jox ko manto ni ko demal boo demee na nga ko tuddee Abdul Xaadir boroom darul moo ci déglu ko mu ni ko Ceerno na nga bëre jël sa yoon wi ndax gan gii ngay joxi tur fii ak ngay yegg ci moom jox ko tur ba keroog ma lay gisaat ku la fi gis yàlla baal waaw dañ naan diw defal na yàlla nangam defal na yàlla nangam defal na yàlla nangam mën naa am cër nangam Sëñ du Khadre daa gën a jamono tàmbalee ram moom bala moo dégg turu imaam ramm na Seex Ahmadou Bamba wax borom Darul Mooti fii ak nga koy jox tur ba keroog ngay delsi ci man Cerno ku la fi gis yàlla baal ko na nga dëngal yoon wi wax nañ borom Darul Mooti fu ne jaar na fa maanaam diggante Jurbel ak Darul Alimul Xabir retour bi ceer Thierno jaar na fépp fu mu bëgg penc mu ne wàcc na fa ngir bëgg yàlla jégal nit ñi. wax nañu maam Thierno def na 3 mois door a borom Touba ndax bëgg yàlla jégal nit ñi fu ne Thierno wàcc na fa waaw bu la sëñ Touba defaree noonu ngay mel yonent bi dafa waxoon dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi. boo anjitu li utammima makaarimal axlaaq la sayyiduna Muhammad wax. sëñ Tuubaa bu la yaree makaarimul axlaax mooy nekk ci yow saa boo déggee lu baax di nga ko yéenee jàmm ñi borom daaru dégg ni rek ku ko gis fii ak muy nuyuwaat borom Tuubaa yàlla baal la moo tax dëkk bu ne mu wàcc fa ngir ràmm nit ñi waaye ci dara kan Cheikh Abdoul Khadir Mbacké mbokkum boroom tubaa la wax naa la ko am na ku mu bokkal ndey koo xam ni moo njëkk a jox borom tubaa kaamil bu jigéen bind di doomam te loolu kat daa meloon ni góomu xol ci sëñ tubaa ndax da koo gis gànnaar ca kër Cheikh Sidiya doomam ju jigéen def ko sëñ tubaa bëgg ko ba bu fekkoon nee na day ñeete keroog day ñee Cheikh Sidiya waaye soxna Maymunatu mi mu bokkal ñaari wayjur moo njëkk jox Cheikh Amadou Bamba kaamil bu mu bind te xoolu ko ci doomam seen wéy jur soxna Aminatu Kanni desul ginnaaw amoon na keneen ku tudd Xadijatu waaye dafa bokk ak sëriñ bi ci wet yu ne boo delloo sax ci ak bokk fi mu toll nii sëñ Mbàkke Buso ma ko yar moom sëñ Abdu Xaadir nijaayam a maamam waaye waxtu wi mayewul ñu teqamtal loolu yëpp waaye daal soxna Kànni moom ci néegub ndeyam la dugg maanaam néeg woy juróom moo fa nekkoon di liggéeyal yàlla ba am fa sëñ Mbàkke Buso magam maam Seyxu Buso ñoom wàcc liggéey ñu jël doomam indi fa doomam joojam moo jur ñoom sëñ Mbàkke Kànni yi ngay dégg sëñ Masamba Kànni ak soxna Aminatu mi meññi sëñ Abdul Xaadir ñii la bokkeek boroom Tubaa sëñ Abdourahmane loo ko jàngal alxuraan mu jànge xam-xam Jurbel waaye sëñ Mbàkke Buso moo ko yar sëñ Mbàkke Buso nag ku ne xam na ni mooy muftiw yoon wi sëñ Mbàkke Buso yar sëñ Abdul Xaadir wax nañ ni bi sëñ Abdul Xaadir ne jujeet la taxoog jàkka waaw daa doon ci sëñ Tubaa taxoog jàkka bi mu jógee rek la taxoog jàkka moom maanaam bi muy dégg imaam mazerul Sëñ Abdou Khadre bi ko nit ñi di wóolu ci mu jiite leen maseerul mu taxoog jàkka taxoog jàkka ba moo waral bi mu demee bay mag su waxtu julli jotee la daa dal borom Touba bu waxtu julli jotee di ko dal mooy bu waxtu julli jotee boo ko séenee muy pratiquer diine boromam ji da yaakaar ne 17 ans la am ci sawar ak lefoog jaamu yàlla yàlla mooy moo ci mayoon kàttan ak yombal ko Sëñ Abdou Khadre julli dafa yomboon sëñ Abdou Khadir li at yi bëri yëpp buy julli da ngay yaakaar ne 17 la am mu ne woon ci njub nag di dund sunna sayyiduna Muhammad bëgg rasulullah yi nekk ci njub ba ñuy wax borom istixaama damay faral di wax ni ba yàlla waxee sayyiduna Muhammad fastaqim kama umirta bàyyam rek a tàllal loxo yàlla ni ko xabli istixaama fastaqim kama umirta mu ni xabli istixaama yàlla jox ko mu ni mun na alayya llaahu bi istiqaama wa jaada bil kitaabi wal iqaama waaye bi ko yàlla nee foox daa mel ni daa geesu teg ci loxol sëñ Abdou Khadir fi mu toll boo taxawoon ci digg pencum Touba mii ni borom istixaama xel yi sëñ Abdou Khadir lay dem bàyyam la ko yàlla mayoon waaye moo ko pratiqué moo yanu slogan ba jaamu yàlla jaral ko nag parce que sëñ Abdou Khadir wax nañ lu mu mas yor sax bu ñu noddoo mu teg ko loolu da ko donnoon ci sëñ tubaa sëñ tubaa lu mu mas yor bu ñu na doomu sànni ko sëñ Abdou Khadre loolu da ko donnoon ci sëñ Amadou Bamba jaamu yàlla yomb ci moom lool parce que da koo pratiqué ba yaram bi mokk ci yàlla may ko kattan gi muy jaamukatub yàlla bu mag jaamu yàlla jaral ko wax nañ ni bu ma masaana sëlmal gis la ci ginnaawam beneen bis mu sëlmal gis la ci ginnaawam loo defate lu ñaaw xamu ko sëñ Abdou Khadir wax nañ bu ne asalaamaaleykum ni warngal gis la beneen bis mu defaat ko luñ la mën a waxalati nga ko donte yaa ko def sëñ Abdou Khadir danaan déedéet ku baax la kooku ku baax la ndax moom na la gis ci sàppes julli ji rek sàppes julli ji nag dafa am ñaar yu bokkul maa am na ku lay jiite julli muy julli rek am ku lay jiite julli muy beneen bénéfice sëñ Abdou Khadir bu la jiitee julli li ñuy wax imaamul aïmma imaam ju mën li sëñ Abdou Xaadir mën amul imaam joo xam ni jërëjëf Mbacke joo xam ni su la jiitee boo sëlmalee yàlla baal la waaye xam nga lu tax mu war a mën a ne koo xam ni ki ñu yabal ngir mu tuddi la kum dajeel yàlla baal ko koo jiite yàlla war koo baal xanaa am déet moo tax am na ku ko mas ni Mbacke dégg naa koo jiite yàlla jéggal ko mu ni ko ak ku ma koo jullee yàlla jéggal ko mu ni ko ak ku ma jiite it sëñ Abdou Khadir daawul wax kaañu dem ma jullee ko kaañu dem ma dimbali ko lay wax dimbali kuy dund yomb na waaye ku tëdd ñu laxas perkaal jébbal boromam des ci nga ne kaañ dem ma dimbali ko loolu du ñëpp ko sañ wax de nan dem ma dimbali ko ab néew tëdd fee ñu ne la mbàkke yow la ñuy nekk nga waaj sam waaj ba noppi ki la doon nég nga ni ko nan dem ma dimbali ko loolu du ay caaxaan de nañ dem taxaw ji kook nañ dem jullee kook yooyu ngay dégg waaye nan dem ma dimbali ko sëñ Abdou rek ab néew sam ab néew sëñ bi dimbali kuy kuy kuy dund yomb na de fi mu toll Saliou sam bu génnoon fii ngiroog yow mi ko puus ba mu génn rek dimbali ko dimbali kuy dund ak yomb waaye ku ñu war a jébbal boromam ci minute bi gasum pax takki tànk takki loxo ah jébbal yàlla mu doonub néew tuddub néew amatul tur néew bi la tudd nga ne nañ dem ma dimbali ko loolu du ko jóg wax ko de sëñ Abdou Khadir Mbacke bu waraan a mës a jullee jib néew danaa nañ dem ma dimbali ko sëñ Fallou Mbacke nag moo ko ci wóolu woon ci âge boo xam ne booba du mag parce que sëñ Fallou Mbacke bi mu doonee xalif général de mourides rek la ko jëlee Gédé sëñ Abdou Khadir Gédé la dëkkoon la ko jëlee Gédé dëkkal ko fii ñuy wax kër sëñ Abdou Khadir sëñ Fallou ko fi andi wax ko ni féeteel fii di jox tur ñi nga xam ni ci njaboot gi lañu bokk te gane jamono maanaam mbokk yi ku ci gane jamono rek nga dem jox ko tur fi mu toll sëñ Fallou Mbacké mën nañoo wax ni ñi mu am ci xilaa xilaafaam moom buñ dee fukk juróom-ñeent ñi sëñ Abdou Khadir leen tudd. ak geneen kilifa gu fi am gu fi am njaboot te bokk ci sëñ Tuubaa sëñ bi rek la daa yabal ci mu tudd moom la daan wax ñi fi faatu demal nga taxawe leen ku gane jamono demal jox ko tur sëñ Abdou Xaadir loolu fonction boobu fonction maanaam yaanu doy ci suñu wàllu diine loolu la ko sëñ Fallu Mbàkke waxoon booba sëñ Fallu jiite jumaa ji bi sëñ falu demee sëñ sëñ Abdou Lahad Mbàkke dolli ci loola ndax sëñ Abdou Lahad moom damay faral di wax ni bokk gu ne am na xaritam sëñ sëñ Mor Musu Faay sëñ Abdou Khadir la bëgg sëñ Abdou sëñ Abdou Khadir doon xaritam gisoo waxal na boppam ni bi ma demee ba amatuma koo xam ni moo ma fi mag ñu ni ma yaa fi nekk ca laa jëlee sëñ Abdou Khadir def ko sama kilifa ca laa jël sëñ Abdou Khadir def ko sama kilifa nga garanti bi El Hadj Mouhamadou Lamine Baara Falilou amoon diggam ak borom Touba sëñ Abdou Laata ko waxoon waaye ci sëñ boo ko yóbboo màkk ci jàmm indilaat ma ko ba fii ci jàmm garanti bi dugg. alaaji wax nañ ni at mooma armalul forog la sol fu xat mu yàkkali mu naree xat mu yëkkati sëñ Abdou Khadir teg ci kawam jàll alaaji baara waaye yàlla fay na ko de sëñ tubaa fay na ko la ko sëñ Abdou waxoon dara dañu ci bi sëñ tubaa demee bay jox ku dul doomam moom la jox te xoolal génération sëñ tubaa ku garaaw la génération alaaji baara seetlu ko ñi mu bokkaloon jamono ñi mu tollool ku ci mas a wàcc cib dëkk nga yaakaar ne xalif général la ñëw sëñ Tuubaa lëm ko rek seetlu li ma la wax xam ngeen sëñ Cheikh Gaynde Fatma ndax xam ngeen sëñ Mbacke Madina xam ngeen sëñ Modou Bousso Dieng xam ngeen sëñ Moustapha Bassirou sëñ Tuubaa lëm alaaji rek ndeke moom lay jox defoon na ko nag ca bu njëkk lëmoon Mouhamadou Moustapha lëm Mouhamadou Fadilou bàyyi Mouhamadou Lamine ak Mouhamadou Bassir parce que du leen jox du leen jox ci saayir xilaafa moo tax si jamonoom jamono sëñ tubaa ci la sëñ Basiru Mbàkke am pouvoir sëñ Baara Mbàkke am pouvoir sëñ Baara jaar Kajoor muy toj sëñ Basiru jaar Saalum muy toj mu nëbbu Mouhamadou Moustapha ak Mouhamadou Fadilu ñee siiw ba koy tagg sëñ Tuubaa di wax bàyyi Basiru ak Baara moo mën a séddale nag sunu waa ji ku nu wax yaay l'universel ku dul borom tubaa nax nañ la universel boo fi dégg bu dul borom tubaa xamal ni ñu ko wax dañoo dañuy neexal kooka sëñ tubaa mooy l'universel mooy séddale te ku mu doo bëgg sa morom fi mu toll seex si li ñuy bari yëpp seen taalibe yi kenn ku ne fa nga yaakaar yaakaar nga ne li sëñ Tuubaa doon joxe foofa la ko joxe li gaa ñiy seet sa sëriñ ci boofu. ñi jébbalu ci doomi sëñ Tuubaa yi fi mu toll noonu ñi jébbalu ci seex si noonu seex yi sax am na ci ñoo xam ni gërëm nañ ñeneen ñooña sant neneen ba noppi ñi leen yaakaar yaakaar ne li sëñ bii joxe ñii ñoo ko ñi ñoo ko ñi ci boofu sëñ Tuubaa rek moo man loolu moo toll noonu maa ngi wax ak sëñ Mor mi léegi sama sëriñ bu naqari sant boobu di ko wax ni foofu dégg coow la jenn jërëjëf ma ko fa yóbbu foofu coow li ne jenn jërëjëf yi borom Touba ko fa yóbbu. bu nee jërëjëf nga génn ay mbër yu toll ni yow man li nga man ci jaamu yàlla bàyyi seen bopp jàpp la benn jërëjëf bu la ko waxee ay mbër yu toll ni yow. jàng li nga jàng xam li nga xam man li nga man ci jaamu yàlla mbaa ñu dàq la ko bàyyi seen bopp topp la te jëf rek la la wax bàyyi seen bopp jàpp la yow di wuyoo saw sant buñ juree tudde la ko wala duñ ñemee wax nu seen doom di tudd yaa koy tudde lu la neex koo ci dóoroon sax mu ni sëñ bi daa tàng kenn du ñibbi te jërëjëf rek waaye jëfe boroom tubaab ji ci sama ginnaaw wax nag loolu moom ku ko def def nga lu yàlla def mas naa wax ci benn cérémonie bu mag may wax am ku def nii mu def lu yàgg ñu delloo rajo bi ma ni leen toppandoo ngeen yàlla ñu bari ŋaang ma ni mook salaatu ala nabi ñooyam ku ko def roy nga yàlla inna allaha wa malaikatahu yusalluna yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi kon ku julli ci yonent bi def nga lu yàlla def wala waaye ku ni jërëjëf borom tubaab def nga lu yàlla def ndax moom moo wax chakartani inda jamii jundika yaa dajale malaayika yépp ba nu taxaw nga ni ma ahmadou bamba jërëjëf chakartani inda jamii jundika yaa xayra jaarin xat makastu indaka moo ko wax de nun nun amuñ ci benn responsabilité moom moo ko wax waaye moom mi ko wax nag nan xool diggam ak boroomam kan la ci mësa a dugal nan xool diggam ak boromam lan la ci mas a xajal sëñ Tuubaa diggam ak boromam dara ma cee xaj lim fi nekk diirub lim fi nekk xamul lu dul boromam gestuwul ku dul boromam jógul dox jëm ci ku dul boromam benn bët la amoon benn côté la ko doon xool moom borom Tuubaa benn bët rek la sëñ tubaa amoon benn côté la ko doon xool gëstuwul ba keroog mu fi bàyyi ko boroomam rek ci waxtu yépp ci jamono yëpp ci guddi yi ci bëccëg yi ngoonaalewu ko suba teelaalewu ko xat-xat amul àndul ak nasaraan bi waajuñ koo faat mu xam ni ñii dañ maa waaja faat ba xelam génn boroomam suñ tubaab moom ci boroomam rek kon nag boroomam faw mu mu mu mu sotti ko ci moom nag parce que am na loo xam ni ñun nit ñu ñàkk fayda ñi sax boo ñu ko defee ñu naw la suñ kër ñi suñ kër fi mu toll ka fa gën a nekk ci ñun moo gën a doon suñu xarit te ñun dañuy gént sax di ko fàtte ñàkk nañu solo ba léeg ñu gént fàtte ko waaye ku ci nekk ci ñun sa kër ka fa gën a nekk ci say ndigal moo gën a nekk sa xarit am de waaw bu fekkee nit a am fu la jooju yàlla mi ko sàkkoon nag sëñ Tuubaa bi mu déggee yàlla nangoo am xarit la fexe ba yàlla ne ko Ahmadou Bamba sama xarit nga fi la wuteeg ñëpp mu fexe ba doom ji mu am nga doon xaritu yàlla doom ji mu am xaritu yàlla nga Sëñ Abdou Mbàkke mi ñuy waxtaane tey moo aye tey ñu koy waxtaane waaye ku mës a tufle awlor dangay mel ni kun ngàdd direct la yàlla daan nangu ñaanam moom du la bàyyi bëgg a jóg bu la tuflee awlor boo boo mooy tuul di nga liw nu sàng la léegi Sëñ Abdou Khadir boo xamante ne dëkk sa bopp bu ci nee tuf boo moyul léegi nga liw nu sàng la waaw bopp kese attanu loolu loru sëñ Abdou Khadir ndax jubóo gum jubóog yàlla lépp luñ ko mas a ñaan loo moo ci gaaw bari na ñoo fi nekkoon ñu naan ñu ñooy sëti sëñ Tuubaa yi mag ku si mas a jaaxle ñëpp ngay romb dem ci sëñ Abdou Khadir sëñ Abo Madiana ñëpp xamoon nañ ko doomi sëñ Baara la woon ju jommaloon waa àdduna sëñ Abo Madiana bu ma sànni xëy lu mu ci teg yàlla def ko waaye moo wax bopp moo wax ci làmmiñu boppam moom sëñ Abou Madiyana ni xëy sëñ Fallu Mbakke day moom laa joxoon sama bopp ba mu fi jógee ku ma war ci sa ginnaaw da ngaa da ngaa da ngaa Xaadir Mbakke laa jóg mu bokk may cal barke borom ko xam wilaay ñëpp ko xam waaw moom boo ma saan wax la day wax la lim lay wax. da def Dakar ndakaaru def na fa lu ne bërki dem rek maa ngi koy nattali siidi mi may àndal ci benn chauffeur taxi bu suñu aboo mosoon a jël pour nga xam ni ka yaakaaroon ka yaakaaroon Sëñ Abdou Khadir gëmul ku dul moom du gone taxi la mës a jël di doo dem ak moom ba une heure du matin suba teel ba une heure du matin mun ko waxee tàllalal ma ñaanal la dey chauffeur bi ni ko xanaa nga ñaanal ma bu ma génnee dajeeg versement ndax damaa war a verser bor mun ko xëy may naa ko dey may naa la oto bi dey sëñ boobu waa ji dëpp yabut dara xëy songu borom oto bi war koo verser ni ko danga may muñal bu ma dawee ba ngoon ma boole ñaari wersement yi indi ko ndax démb dafa mel ni daa xaw a metti ci man mu ni ko yow jàmbaar nga jële oto bi nga fayee ko noo ko mënee si yabu ko waxoon biig ni ko may naa la oto bi ak yu baree bari ak yu baree baree bari ka ko daa dawalal lokoor la tudd sa ñabo lokoor ne ko xëy la koor indil ma yàq ma jël la ma jiwal la garabu yàpp ci sa kër gi la koor indi yàq mu ni ko gasal fii de mu gas mu mu dugal yàq bi moom si njaboo ni ko sottil ndox mu sotti mu ni ko suulal mu suul mu ni ko saayoo xëyee ba jant so te ndawal duggul ci kër gi na nga xam ni baara juruma de koor ga mësta xëy te ndawal duggul ci kër gi mësta xëy te ndawal duggul ci kër gi day xëy rek ndawal ñëw xanaa kooku wàllu la ah? kookaa wax ni ku ma war ci sa kaw gannaaw sëñ Fallu dangaa ngaa yegg suuf sëñ du Xaadir rek laa jóg mu bokk may cal mu fonkoon waxtu yàlla wi li ko yàlla di may may moom sëñ du Xaadir li muy jubóog jubóog yàlla ca la gën a fonke waxtu yàlla ji koy borom Tuubaa la yor mas naa génn di julli ji ngelaw leeg taw bi ànd sëñ Abdu Xaadir waaxu ak noonu ko yàlla binde woon ci yax bu ndaw bi nit ñëpp ñeewante ko waaye mu jubali fa muy jullee ji dem julli ba noppi ñëw biir ñeewante gi tax am ku ko ne ah Mbàkke moom day ñeewante woon nañ la ak taw beeg ngelaw li lool ci bi ngay julli ji wax nañ ni mu daal di gëdd daal koy wax ni di julli ji muy ngelaw ak taw ak tabbi ci bàmmeel muy lakk lu gën muy tàkk lu gën di ji muy ngelaw ak taw ak tabbi ci bàmmeel muy tàkk am lu ci gën kon moom foofu la tegoon boroomam am na loo xam ni nag Sëñ Tuubaa rekk ko daa am mooy Sayyiduna Muhammad ñëw ci yow yàq sa tan nelawoo defoo dara njool màkk ñëw seet si la sëñ Abdou Khadir Mbacke rek ko ma sa am sëñ rek lañ ma a xëy mu ni Seydina Muhammad ñëw na fi ci bustaan sallallahu alayhi wa sallam fii xëy rek ni ni Muhammad ñëw na njool màkk seet si na ma mhm. sallallahu alayhi wa sallam si nekk ak yow ba dem jot mu dem rasulullahi loolu ci sëñ Tuubaa rek lañ ko daa dégg sëñ Abdou Xaadir la ko yàlla mayaat parce que noonu la meloon ci njool màkka daa doonoon sëñ tubaa ci bëgg rasulullahi doon sëñ Tuubaa ci roy rasulullahi ci doxin doon sëñ tubaa ci yërëm mbindéef yi fi mu toll sëñ Abdou Xaadir am na ay qualité yoo xam ni qualité boppam la fi mu toll ak tabe ak tabe Sëriñ Abdou Khadir Mbacke moom amul ku ko ci dab su lu soxla rëy rëy boo ko masaan a wax dina la jox lu faj soxla si ba pare dig la ni la bu alxamisee nañ daje Touba ma mottali ko te jox na lim la jox xam na ni faj na sa soxla waaye danaa la bu alxamisee nanu daje Touba ma mottali ko parce que lu ma a xew moom Sëriñ Abdou Khadir Mbacke alxamis Touba lay fanaan parce que jumaa jee tax fu mu mën a tourner ci réew mi fu mu mën a dem ci tool yi fu mu mën a dem moom sëñ Abdou Khadir Mbacke alxames ci ngoon dana ñëw Touba moom. la sëñ Fallou Mbacke defoon ca tubaab Bogo ca njéeréer yaat def na ko fii ci kër sëñ Mountakha ci mbul kayel gane si na sëñ Mountakha njéeréer yi di dugg ci cin yi ñam yi ñuy togg njéeréer yi ji ci tàbbi sëñ Abdou Khadir ñu wax ko ko mu ne indi leen ci benn ñu andi sëñ Fallu nag daa waxoon ñu dégg waaye sëñ Abdou Khadir waxul dañu ngunum ngunuf ni taf njéeréer bi njéeréer bi génn ànd ak njéeréer yi wéy kon jubóog yàlla mën na noo wax ni foofa la yam sëñ Abdou Khadir Mbacké yam ak jullee mi ku ko fekke ku nekk xaw ma di nga teewlu xaw ma doo teewlu waaye di nga dégg alxuraan joo xam ni moom teewlu mën na laa bañ a yomb wax nañ bi fi buur Màkka ñëwee ñi nga xam ne ñoo takkoon casque yi nga xam ni ñoom ñoo doon daanaka presque garde rapproché yi bi buur Màkka ñëwee wax nañ bi sëñ Abdou Khadir bàkke di julli fii nii bi mu bi mu bi mu bi mu taree Fatiha bay tari suratu jumaati ñooñu ñuy wax naar yooyu ñuy wax ñoo war a garder ñoom buur bi ñoo doon yëngal seen bopp yi ci biir sàppe si sëñ Abdou Khadir di tari ñuy yëngal seen ñuy wëndeel seen bopp yi parce que na mu meloon ci yàlla ak alxuraan xam nga yàlla yàlla beralul kenn yëf yi moo taxoon Sëñ Tuubaa wax ni fala tuxassis fadla rabbin xad ala li zi taqaddumin faqat fatajala fee la tàmbalee wàcc waaye alxuraan fii la dëkk barke xaadim rasul bis boo bis bu sëñ Abdou Khadre Mbacké taxawee ci minbar di tari alxuraan di nga xam ne kii fi mu dëkk la alxuraan dëkk lu bari nag dinaa koy wax dinaay wax xaritam ba sëñ Abdou Lahad Mbacké lu ne fa mu dëkk lay am kër waaye Cheikh Abdou Lahad doomi soxna ma Reba Jaxate moo defal alxuraan kër kër gi alxuraan njëkk am ci kaw suuf Cheikh Abdou ko def lu ne nag fa mu dëkk lay am kër seen way jur a waxoon ni yàllaa ma doon loo téere bi maa ko moom te lu waaye doon yaa ko moom fu ma awrasna al kitaaba allazina stafayna min ibadina mu ni awrasani awrasani laahu kitaaballahi waaye boo masaan a dégg alxuraan kenn ci doom bi borom tubaay yi di nga xam ne alxuraan fii la dëkk bind te doo xool ñoo ko moom fii la dëkk waaw te doo xool fii la dëkk fépp la mokkal am waaye bind te doo xool fii la dëkk concours bii ñu koy def ñiy inscrire ñëpp fii la nuy bawoo benn déet bu keneen inscrire lu ku koy jël concours bind bi concours jàng bi ku nekk ay bokk ku nekk ay bokk ci Sénégal waaye concours bind bi ñiy inscrire ñëpp fii lañuy ñuy loolu la sëñ Tuubaa am lu kenn amul bi mu nee maamam alxuraan dafay bàyyi jenn doom juñ bind ci kaam juñ bind ci daaraam douze mille kaamil yuñ xoolul bi mu nee maamam alxuraan dafay bàyyi jenn doom mu def ci alxuraan lu kenn musta def defaral alxuraan kër wàcc liggéey dem tëdd ca biir. ba koy Cheikh Amadou Bamba yàlla mi nga xam ni moo moom lépp moo xaritoo borom tubaa te xarit di sañ ci yëfi xarit ba dara damay faral di ko wax gaa yi ni leen ñii naan murid dañuy bokkaale murid yi bokkaale ñu seen sëriñ mooy xaritu yàlla te xarit bu jëfandikoo ci alal xaritam la ko soob buñ ko nettalee ñu ni dañoo bokkaale privilège yi sëñ Touba am ci diggam ak yàlla ñun moom rek la ñuy nettali ñu ni dañoo bokkaale waaye xarit day sañ ci alal xarit ba dara bis bu nekk nga gis xarit bu génne doomam këram duñ wooyi magam duñ wooyi rakam xaritam la nuy wooyi rek mu mu dem jëli xale ba indi wala de bis bu nekk borom kër jël jël jël benn décret ci këram boo xam ni arrangé wul waa kër gi ab xaritam rek la nuy seeti wala de sëñ Tuubaa nag xaritu yàlla la lii rek la yàlla amul ndey amul baay amul mag amul rakk amul doom mais moo wax ni wa taxazallahu ibrahima xalila wala de bi yàlla nangoo am xarit la sëñ Tuubaa fexe ba yàlla ni ko Ahmadou Bamba samp xarit nga mu bindal boppam ci loxoom sabata kaw niya xalilallaahi billaahi sarmadan xabiballaahi wallaahi inniya qillun lil ilaahi bihi hibbun lahu duuna kasbin fihi ujsahu allahu xillii abadan wallaahu hibbii wala ilaha illa allahu waaw kooku nag sañ na ci alal yàlla ji dara lii rek la waaw yii muy def ñu koy wax ñun ñu naan bokkaale la yépp loolu kese la waaye murid yi duñ bokkaale yàlla benn misaal laa lay jox ci murid yi duñ bokkaale yàlla jox la rajo bi murid yi duñ bokkaale yàlla sëñ Tuubaa ba ma wax yàlla rek ay buur ci wetam dalay joxar bi ni la tasxiir gee ko yàq del wax yàlla daa lay buur boo nee yàlla rek day mel ni am na ko war a ñëw keneen rek la sëñ tubaa daan bañ a dégg ci yàlla te ba tey sénégalais yaa ngi wax yàlla rek kay buur ñoom araamaluñ ko te sëñ tubaa da ko daa tere fonk yàlla ak jaamu ko moo taxoon mu mel ni kuy xaru bi muy wàcc ci kaw océan atlantik waaw waxtu yàlla jot mu mel ni kuy xaru sànni der bi ci kaw océan atlantique wàcc ku fonk yàlla ba ba ba jaamu ko toll la noonu war noo xam ne sa taalibe bi du bokkaale yàlla bi ci des nag lu ñëpp di teg bët la Tuubaa gi ñu nekk néeg bi fi gën a seer yàllaa ko moom am déet ndakaaru gee may njibbi néeg ba fa gën a seer yàllaa ko moom te ñaar yëpp njabootu borom Tuubaa ko def te amul bu mel ni moom ci senegal bu njabootu keneen def kon ñun suñ bokkaale gi neex na salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu